suñu ay doomu réew ñàkk fa seen bakkan lim ba takk woon lool jamono ji ñu ne jam ñi ngi euh, tegaat loxo beneen gaal goo xamante ni dafa nopp woon ngir moom it euh, jël yoonu géej mu nekk mbir mi nga xamante ni daal ginnaaw li nga xamante ni ñu ngi ko ciy dégg ba tey phénomène bi mu ngi continuer di wéy. xam nga keroog bi président Diomaye waxee ne. Mhm. képp koo xam ni gis nga gaal guy takk na nga yoole expression bi ñu bëree bëri dañ doon reetaan. Mhm. mais gis nga soose. gis nga fourneau jaara su téye ne du tàkk da koy ëppee fu ne di wut ventilateur am na ñoo xam ne ventilo la ñuy wut branché ko ba pare teg ba pare xoolal boole ci yor jël kii bi teg ci suuf ba pare génnee ko ca mbedd ma ah non mais mais situation Barça wala Balzac gi kat soose ah. barki Demba Ndiaye ñu ne gaal goo xam ne def na lu ëpp ñeen ñaari téeméeri doomu aadama. Mm-hmm. source a bind ne yaa un mois ci ginnaaw avant gaal gii. Mm-hmm. soo amoon na boo xam ne cent soixante quinze personnes la. te boobu nit ñi commenté wuñ ca bii moo ëpp coow. Mm-hmm. waaw léegi soose mm. tey am na benn journal bu bind benn journal boo xamante ni nii sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi buñ la waxee. rapport bi nga xamante ni dañ koo génnee ci mineur ak adolescent yi nga xamante ni maanaam ñu ñoo suux ci biir ndox mi. yàlla sëñ ah, bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy xool xool a gaal bu mujj a gaalu démb gi. te police da koo déjoué muur muur encore muur waa ji Cheikh Sow la tudd 35 cinq la ak complice am bi Mamor Ndiaye 22 ans ñu jàppale. quartier Falok laaj ma ko nekk ñaata la joxe soose. Hmm. ku ne 500000. am na ci mineur boo xam ne moins de treize ans la bokk na si mu jàpp démb. waaw ah, lii tamit nag lu ci. cinq cent mille francs CFA genn wàllu million la ñuy joxe loolu nekkul dara dara dara dara dara xoolal. identification des migrants mineurs aux îles Canaries déglu de sur les cinq mille trois cent enfants et adolescents mille sept d'origine sénégalaise. maanaam 3400 yi ñoo jógee ci biir Afrique yëpp mais junni maanaam ci kaw gàttal bu ñu neexee ñu ne ñun ñi ci ëppale ci lañ bokk junni ak juróom-ñaari téeméer ci ñoo xam ne ay tuut tànk lañ ay gone. gaal yoo xam ni jaare nii ngay gisee say morom yow soose ñii amaguñ vingt cinq ans ñii amaguñ trente ans ci ay xale jigéen ñoo xam ne dañu am avenir mm-hmm. léegi nag li président Diomaye wax ni léegi nañ leen ci boolewaat beneen bu bees mooy yoole yoole parce que dañ koo uppee fu ne bu dee sensibilisation rek télé ak rajo yi dañoo wax a wax a wax a wax ñaata at a ngi ñuy wax ci affaire barsa wala Balzac bi ay atti atti at jamonoy Ablaye Wade Macky Sall rek def na fukki at ñaar xanaa kon bientôt vingt ans kon ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne ci mais solution bi ñu ne état moom moo war a teg. ay système yoo xam ne gone yi dinañu am ci luñ góor pour mën a góor maanaam am ci luñ téye pour toog mais soose coow li loolu wax la rek am na ñoo xam ne boo leen joxoon ay salaire un million gisatuñu lu dul dem ñi ñi bàyyi seen liggéey nag jaay seen i bagage dem wax dëgg fa yàlla loolu du problème man moom jàppatuma ko problème mu ñàkk liggéey mais est-ce que affaire bi ñàkk est-ce que affaire bi aussi bon comme le disent les autres là damaa bëgg a tekki teral suñu waajur mais est-ce que bëgg a tekki rek la wala ak teral waajur kese wa ilaa bon objectif bi mooy man maa fi bëggatul liñ naan ku bëgg a xaru ak ku bëgg a tuxu mais ñooñu sawaay caaxaan jàpp leen de. bañ nañ dëkk bu ñoo jël décision ne dañuy tuxu. dëkk neex Sénégal dëkk bu yow day jaara boo ko waxee moom ñu gëm ko. dëkk boo xam ne kenn mënu fees. yow day yow dëkk bi moom yow day dëkk neex na ci yow. yow day bu la neexee nga wax ko en tout cas daal. kenn mënu fee wu mooy Sénégal. dëkk bu neex la de. dugg cim sëy sëy fan yi sax laa xam dëkk bi neex na. ah baax na. du eh. dugg cim sëy wu bees day xam nga ne. Ah, dëkk bi day neex ci moom. waaw ah, neex na moom dëgg fa gis naa fi sànq ku ku fi bind ma ne ko tuubal li nga wax jaara léegi matam la. waaw jaara léegi daa am borom kër. waaw tuub leen yooyu. Ah, monsieur Diop day xeex de. léegi waaw jaara léegi mu kii la. bu ko neexee mu xeex léegi. soose. xoola kii naan ay ñiy jaay essence essence su gaal dañ leen dañ leen war a xanaa ñiy dem di nappi kon kenn du leen jaay dem du leen du leen jaay essence. Mm-hmm. dëgg yàlla <laughs> non damay laajte yow ñuy jaay essence su gaal. waaw ah, ñooy jaay ñu napp boo demee nañ leen contrôler bon <laughs> yow nan ngay xamee ni ñii dañuy dem. Mm-hmm. mënoo ko xam. moom capitaine diw mais nappkat la bu ñëwee di jënd essence. nan ngay xamee ni kii actuellement encaissé na mais xam nga soo setam benn dem rek xaw ma ndax fekk na la fi. nga laal dix millions sept cent. <laughs> business la de. waaw benn takk rek nga am dix millions sept cent. ca yàlla. woo ma ci ay weer yu néew di mais image imaginez yow année bii rek. Mhm. année bi yëpp yëpp yëpp. Hmm. nga takk ci ñetti yoon. waaw. daal di jege quarante millions de. mais mais yoole boobu président wax sax pour man euh, solution bu gaaw la ndax gis nañ benn reportage boo xamante ni waa ji dafay wax ni gaale bu ñuy dem nii lañ leen wombee ñu xam ne ñi dañuy dem ñu bàyyi la ñu dem ñëpp gis seen bopp di ci di gis ñi ñii dañuy dem mbëkk ji donc yoole boobu bu amee pour man. Euh, ah, euh, voilà dina nekk benn solution boo xamante ni dina wàññi du ma ne du fi gaaw du du fi jóg nag mais. dina wàññi lu bare bare. jaara man mën nañ la sax ñuy yoole sax ñu leen di neexal comme jaara gën a sawar nga lan moo tax mooy wax la ne la même yoole bi sax est-ce que dina nekk solution mais man dama gëm ne soose hmm. man ci li ma gëm ak as néew man dama gëm ne affaire bi résoudre hmm. waaw dafa am benn période boo xam ni parce que le truc là est bien organisé hmm. nekkul ay nit ñu xamul ndox ñoom ñoo ci nekk bëgg a dem dem am na réseau am na ñu koy organiser soo xoolee période froid jamonoy seddaay gaal yi dootuñ damati benn zone bu lam daan yi xamul dara dara dara ci wàllum ndox ak yooyu moom douze mois sur douze moom su sañoon à tout moment yegg Europe mais lu tax période boobu muy wàññeeku. Mhm. parce que dafa am ñoo xam ne dañu xam ne jamonoy sedd bi. Uh-huh. dajeeg glace gi ci yoon bi. Ah. dajeeg sedd bi boo tëmbul sax mën nga dee. yoon bi ngay faatoo fa yàlla ñooñu dañu xam ndox. ba pare soose dawal gaalu ca tamit pirogue ba ca îles Canaries yee ca Espagne. Hmm? ku xamul waaye kooku ab dawalkatu gaal nii boo yii nii rek mënuñu ko. Hmm. ku xam yoon bi dem moo ko mën a def. parce que lu tax mën ne le réseau la encore jaara est-ce que xam nga ni géej gi nga gis moom jaww ji ñoo yem ak kaw tali bi hmm. da nga yaakaar ni gaal yi dañuy tëndax tëndax rek di dem. lu ne Pape lu ñun suñu dëkk. waaye ma ne suñ dëkk nii rek ndàngaan sàmm gi nga xam ne sag weekend fa laay ne fa dem nekkul ci ndox mi mm-hmm. da gis gaal gi yenn saa yi day ñëw ci taatu tefes gi nii lay daw bàyyi fii mm-hmm. nga ne waa mii kii moom ni mu jegee fii nu mu demee nii mu ne la fii mooy yoon wi mm-hmm. su géej gi feesee su géej gi feree nga gis ko ci biir ndox mi ci boppam am na foo xam ne day am suuf ngay dem ba ci digg ndox mi wàcc gaal gi sa sa oom nii nit ñi di ko gis nga taxaw ci digg ndox ba. ñoom rek ñoo koy xam. géej dafa am nii yoon nii comme ni jaww ji amee yoon avion yi nekkul ne dañuy bërti bërti bërti bërti bërti noonu rek parce que jaww ji yaatu na fu la neex jaar. Mhm. am na foo xam ne avion bu fa jaar dootoo ko defate ci suuf nga jëm. noonu la amee tamit ci tali yi. noonu tam la amee ci tali yi. tali du n'importe où lay jëm. déedéet ah gisoo lii lii da ngay tëb rek di di di di daw nii rek lu tax doo wàcc autoroute à péage bi nga dugg ci biir tool yi. ba pare autour APS ñëw rek jug. déedéet ñëwul tam jug gis nga ko. te mënoon na nit léegi nag géej gi aussi noonu la mel dafa am yoon mais kii dawal gaal jëlee ko Afrique dugal ko ba Europe sa waay soose kooku. xam na yoon wi ko kooku moo tax ma ne la man dama gëm ne affaire bi réseau la. loolu moo tax mu nar a naqaree xeexal. Hmm. mais li xel muur yëpp. nañu xeex ak ñoom nag. barki démb président Diomaye dem démb ñu jàppaat fa gërëm gaaw démb nit ñi gàmm ji ba ne ci yoon bii dikk xam sax stratégie bu garaaw la. c'est ça la commissaire a mm-hmm. Mm-hmm. yow nga bàyyi ba jour bi nga xam ne moom la nit ñi di jóge gàmm boobu yow say say passager ñi nga war a dugal ci sa. gaal gi xaw ma avion bi ci biir gaal gi boobu wax nga ak ñoom ba ne leen jour tel day baax parce que police du ñu tal te état du ñu tal. dëkk bi day wéet. dëkk baa nga Tiwaawan. day wéet ak ak Kaolack ak ak ak yeneen ngox Touba. bu ko defee nag ñun ñu profité jël ndox mi xaw ma nan la police dafa gis leen. Mhm. moo tax ma gëm ne affaire bii. ay borom yi a ngi ci de. vigilance bi rek sosé très rapidement ñu dem ci beneen. waaw yoole yoole bi nga wax de defe naa mën naa wàññi mbir mi parce mhm. que point de départ yi moom xam nga souvent foofu boo fa dëkkee boo fa yàggee boo gisee ay jeunes yoo xamul commencé faa bari rek war ngaa ñaaw njort ne ñii dañoo bëgg a jël gaal yi. Mhm. waaw moo tax boole bi daal na ci askan wi gën a góorgóorlu li li ci doy nag mooy li mu wax xam nga. li fa xew barki dem moo njaaree Sénégal yëpp di ko mm-hmm. méttitlu lim bu takku gaañu ci président dem fa wax fa lim fa wax biig xaw ma barki biig ñu jàppaat fa geneen gaal gu doon waaj a dem xam nga loolu tamit sëñ bi mais phénomène bi daal man jaaxal na ma. Mm-hmm. jaaxal na ñëpp vraiment professeur. parce que mënoon xëy la parce que ki dajale 500000. waaye sëñ bi kooku 500000 yooyu loo ci dolli tàmbali. liggéey mm-hmm. ah doy na waar de. doxul ëpp ci xam-xam ñun. <laughs> ah maa ngi gis eh, mhm. ku bind keroog ne da doon dox rek dégg ñaar ñuy waxtaan naan seen gaaw mu ngi waaj a dem. moom nee na après il n'a rien compris quoi mu ngi koy mu ngi koy bind nii. il n'a rien rien rien rien rien compris ci dëkk boobu de. mu ngi koy bind nii quoi ne waaw bind ko ne ne dafay romb ni par hasard rek di dégg dégg ñaan ñu naan seen gaal mu ngi war a dem bés sàngam nee na moom mu ne lii nii moom comprendre quoi mais man maa ngi koy lire maa ngi naan lii tamit du dëgg mhm. man mii lire sax je ne comprends yi nag li li waa ji naan daal man je je ne comprends pas quoi kenn comprendre kenn comprendre keroog honorable dafay wax benn affaire mhm. ma demaat di ci am ku may waxtaan ñuy wax ci sujet bi ma ne ko moo tax te honorable ne moom nañ ko jox euh, définition tekki définition tekki mm-hmm. tekki ma dégg bërki démb xamatuma fan daal ku ko wax waaw ay ay ay ay ay ay ay ay ay kilifa may waxtaan ak ñoom ñuy ñëw di wax ci beneen sujet ba tudd tekki ñu ne am na koo xam ne yor na téeméer faj ci soxla am koo xam ne yor na un million faju ci soxla ay yeneen soxla dab ko mais nag y a des gens qui sont obnubilés on wax na léegi objectif mais man pour man du objectif objectif ne damay dem rek non mm-hmm. pour man y a des gens seulement ils sont par le voyage suñu voyagé wul du doon am ay milliards mais ñoom. mais jaara cinq cent mille départ la keroog dama ni ki teggi natt deux millions paasal ñeenti doomam. ma ni 2 millions départ la am ku ma bindal ne ma sugu 2 millions du départ arrivé la sax. yaa raison. lépp ci xel la lépp ci xel la man nag après da ngay dem di dem di dem da naan ñi nit ñi est-ce que naawtaluñ leen. Hmm? raison boo fi énuméré keneen énuméré ko ñun ñëpp suñu doon def analyse man dinaa indi benn raison honorable indi raison honorable mais finalement da ngay gis ni raison yooyu yëpp boo ko dajalee. Mm-hmm. est-ce que nekkati na raison. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne dé yaa ngi gis nag ñu bëgg liggéey ñu bëgg liggéey Tiwaawan gii ma jóge barki Demba Ndiaye gis nga ko dawalee sare di yëmbal ba Tiwaawan après ma leen yi laaj quoi ñaata ngeen ni amag yooyu kooku bëgg na liggéey mais tamit li li inconcevable mooy nga dem ba dajale nga xam ne tu as toujours la possibilité. xool lan ngay xoolee nooy doubler sa saret wala nooy ubbee wala man dama bëgg a jóge ci saret dem ci oto cest à il faut que nga am ay perspectives quoi. moo tax mhm. tamit pourquoi dans nos écoles de formation professionnelle tey jii entrepreneuriat yi nga xam ne ñu ngi koy jàngal nit ñi de manière théorique ñu am ci théorie pourquoi pas ñuy pratiquer ne la yow fii sa niveau yegg na fa di nga am moyen d'accompagnement on va commencer par cinquante mille on va commencer par cent mille looy gën di dem tu amènes des preuves nga gis ni lii kat réalité tu as su pratiquer voilà. côté boobu aussi yooyu tamit yëpp ay solution la mais il faut que nañ changer système bi jaare mais mm-hmm. aussi il faut que ñu gën a conscient des enjeux sociaux ak surtout ça nga xam ne dinañ mën a gën a xoolaat suñu taxawaay daal parce que yàlla suñu borom on a da ko fi wax gémmiñ gu mu xar préparé na ko lu mu ciy dugal. ko gën a doylu rek. jaara jaara sénégalais yi yàlla na ma yàlla jéggal daf ci bëri ñoo xamante ni boo leen joxoon tey cinq millions du ñu <laughs> koy lekk soose. dem toog soose dafa am ñoo xam ne xam yàlla lan la leen bindee. Mm. Mm. dafa am ñoo xam ne bon. dañu bëgg affaire u suivisme bis boo leen ne wéetal nii rek. ñoom ñoom ñoom problème. jabar leen doomu leen ci mën guddi jot ñu fanaan point il faut seen grand yi xoolal di leen encadrer di leen jàppale dañuy liggéey de dañuy liggéey ak leen de mais am na ñoo xam ne responsabilité. ci boppam moom la leen yàlla nattoo li waa waxoon ne y gens kii sont nee leaders yoruñu dërëm mais député xale yaa même booy sax seen buntu kër la ñuy biyee égal fa la ñuy fooyee. ñooy diriger su match su match amee ñooy classé. ñooy classé bu ñu naan match xaalis ñoo daan encaissé tegi. bu xeex amee itam ñoom ñooy jiitu. ñooy jiitu mais am na ñoo xam ne dañu yor ay milliards. xam boo ñëwee ànd ak ñoom nii dañ naan la wuy ma vas-y vas-y jiitu. Mm, jiitu ne ko non non non mu ne non loolu dafa am fi mu nii xoolal ay cinq cent mille non départ la boo leen joxoon juróomi million. ñu ne la dem rek. du ñu départ bay arrivé. loolu ci éducation de base bu ñu demee Europe aussi. Hmm. seen copain dinañ leen gàttandu wala seen mbokk yi dara. Hmm. ñu ci bëree bëri dem nañ Europe. Hmm. am fa deux ans trois ans quatre ans cinq ans ñibbi si waat taafantaloo ne bon xam nga rek gaayeen dañ dem foofu gaayeen xam nga problème mu kayit yi gaayeen ngay génn ñu lay topp. nga ne gars yi xaaral ma dellu jolof ñëw daan fii doole et puis saa waay boo bëggee dégg dëgg nag xoolal bitim réew dara amu fa de dara amu fa pour nga gëm ko il foo nga dem fa. Mm-hmm. parce que dañuy ñëw li nga amoon fii kës néew ci protection ci accompagnement ñu lay toggal sa sœur di togg. foofu loolu yëpp amatu fa. amatu fa yaay toggal sa bopp. yaay yor sa bopp. yow yaay régler sa réveil mais am na ñoo xam ne mënuñu yee seen bopp. <laughs> sama saaku tayal gi yeewu moo gën a yomb mënuñu ko dañuy rek la nii dañ koy bës di ko bësaat di ko bës di ko bësaat di ko war a xëy huit heures dem Sandaga balaa ñu faa yegg une heure jot ñooñu jox leen deux millions du tey bu ñu gisee gaal gii nii gayen xoolal jël deux millions yi wutaale seeni copain jox leen ku ne cinq cent mille pour ñu gunge leen au cas bu ñu arrivé foofu il ñu am ku leen dimbali kii leen loolu de loolu ñun waa gëb la gi lañ li may wax nii dama koo xam yàlla am na ñoo xam ne dañoo topp ba keroog ñuy dee loolu leen di topp ba ci wàllum politique bi <laughs> wuy ba suñu gañee woon nga ne leen réew maa ngoog pale baa ngi xam na lay def dañuy dem ba buntu pale taxaw ne woo leen soose mu ñëw man amet mënumaa dugg bu ma duggee fi ni nii Macky jox ma caabi fu ma jëm bu leen wéyee yow lañ jiital nga ne waaw d'accord mais nañ dem rek bu ma ko joxee après léegi man ak yow ñu toog waxtaan. phénomène bi dafa gën a profond fi ko nit ñi jàppee racine bi dafa sori am na ñoo xam ne dañ naan waaw booy xaalis bi ñuy dépensé mais non mais lii ubbi na ay entreprise wala mais lii commencement la mais doo def lii ak lii ak lii cinq cent mille ngeen wax jox leen ñu laal deux takk war a dugg fii nii ci biir mbay mi wala dugg ci njaayu ngoon mi wala dugg ci ay jaay dàll wala dugg ci taxi wala dara yor seen permis nii duñ ko mën loolu nag loolu nag ah duñ ne état lu mu ci mën ndax état moom il est au début à la fin de toute chose waaye nag. ah baax na. président dina naqaree fa. professeur mi ngi koy wax ci wàllum école yi. Ah, ah, baax il faut ñu changer système bi su ko defee xale yi ñu leen di a tàggat. di leen teel a ci li ñu bëgg a def. am na koo xam ne dix ans continuer di jàng ba am bac dem université après. amoo dara si li nga war a def tamit. mooy loolu am na koo xam ne day ñëw commencé jàng nekk primaire xelam nekk ci leneen. Mhm. mais xelam ci li mu nekk noonu da ngay gis koo xam ne jàngul man ñaata booy laa xam nii nii nii nii lii Abdou di ñu defal nii. Mhm. jànguñu ko mais mën nañ ko am na ci koo xam ne damaa wax ba sonn ba mu amee befee moom la teg na le boo xam ne waaye <tsk> mën daal jàngiwu ma. d'accord mais xoolal li mu mën nga xool nan voilà marine kii fële tamit yooleeb opération yooleeb am na ñoo xam du ñu boole li xew ci boutique yeeg jaaykat yi mooy xew wala ñi war a boole ñooy dem wala ñoom la seen i di dem pourquoi pas président renforcer kii bi marine nationale bi comme ni ko Souleymane waxee. su ko defee am na ñoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci kii caserne Euh, deuxième partie déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet gis nga yooyu. maanaam arrêté de. amul je t'installe. installé wu ñu kenn dama forcé gisoo sama kanam gi. de revue de presseur ou bien de de de de revue des titres loolu jeex euh, de ce mardi 17. <laughs> Euh, septembre deux mille vingt-quatre en présence de notre chère nouvelle mariée vraiment nga defal ko loolu cadeau. yow euh, sugu. yow yaa may defal euh, cadeau tey man dama di sa baay ba ma la mayee laa la defal cadeau boo xam ne dootoo ko damu nga fattu fukki fan ak juróom. Hmm, lii laa la mënal. waaw may la boroom kër ga sëy hmm. wala soose. <laughs> Ah, waaw man ba ma ko mayee. ca laa ca pare. waaw bu ma la yónnee sa borom kër yónni la sa yónnantug borom kër nga jëm. Hmm. waaw lii nag dama la ko fi yéene. waaw d' accord mooy naan defal ma kanam. léegi avant vertu yeeg pouvoir bi yóbbante nañ ma ci yow. luñ may madame mais ma honorable lan moo tax yow revue bi léegi nga koy tay lu xew. ban revue. kenn kaa xam lu xew. lan moo xew ci la man loolu du ma ko nangu si plateau bi de. non bu ma kii xamal ne damaa yor ay lii dossier yi honorable i ah. damaa yor eh damaa yor ay dossiers. mën war na mën a xam te yéen man maa ngi waaj ak deux ans de maa ngi waaj ak deux laa lay wax nii laay lay li la émission tës tës beeg yëpp damay ñëw. Eh, yóbbante nañu yëpp léegi damay bëgg di ñëw. ma madame Kane may mun a. waaw waaw yóbbante na ma nuyoo ci yow. maa ngi koy fay umpaañ soxla Diop tamit ca Tivaouane. mu ma man Ameth rek. maman Ndeye Awa Ndiaye nee na ñu de jàpp. Euh, waaw wax leen euh, na ma muñal ko na kër yi jóg. tey laa lay may kase de tey kase man loolu moom. yooyu ma may la fukki fan ak juróom nga sëy fukki fan ak juróom ngay sëy mu naan mu a ma soose ah. tey rek laa la may. sa dóor yi feeñ na xam nga xam nga réew mii. Ah. may leen jaara ay kër. Brooklyn moom xam naa ne du la may kër parce que nee na naam maye nañ la waaye ba léegi loolu nag moom fii rek la am Sénégal jaay gi may fan ak juróom. vraiment waaw may leen ko ay kër. Hmm. voilà. voilà voilà kii de nee dem na quatre fois ci gaal gi. dal na la te yàlla ak lay continuer di ko suturaal ba léegi. léegi léegi may leen jaara ay kër. waaw bu ko defee nag mu waajal sugu introduire ko. nan la may kër yow mii. voilà